alhamdulilah jërë ngeen jëf mbokk internet allo Sénégal la ca maam sata koy jël dëgg la waaye na fekk nga doon ka ko war a donn boole kook jàng boole kook tamit donn ko moo tax tey allo Sénégal bi mu déplacé woo ñëw ci digg àll bi kenn moo ko jaral muy sëriñ maam Cheikh Touré dëgg la boroom xam-xam la dëgg la lu mu donn ci ay maamam la waaye lu mu sonn la mu jaral ko lu ne doy na sëkk ñu ni maam Cheikh Touré maam Cheikh Mbaye mooy sa maam waaye doy na sëkk ñu lay woowee Kamaalu Bamba doy na ci ndam waaye li ko may lenn la xam-xam jub ragal yàlla waaye tamit njariñ yi nga xamante ni amal na ko jaam yi ba ki ko yaakaar ñëw daw jub si ci moom yaakaaram du tas yaakaar googoo fi indi aloo Sénégal ndax ñi ko yaakaar dafa bëri ñu ñëw nag ngir jëlsiwaat révélation jëlsiwaat xam-xam waaye tamit taataan njariñ lu baree baree bari guléet lañuy wax ngeen koy gis ci sit bu mel ni Allô Sénégal li taxoon nag mu gëj a génn lenn la ajooy jaam yu dajaloo ca moom jaral ko mu fatu ne ci ay bés wala sax ay weer mu jaral ko ko mu bañoon a génn fenn ba ku jàkkaarloo nag xar kanam gi danga ko fekk ca fa muy liggéeyee tey li waral mu génn mooy situation réew mi ndax mooy lii xeeñ waaye yaakaar ba léegi tasagul te sëriñ bi nee na faw ñu déglu ko ngir mu waxaat jaami fu ñuy tegaat seen tànk waaye li waral déplacement bi yépp li waral tëlëf tëlëf gépp mooy dañoo gis ni làmb ji boobu ba léegi coow laa ngi jug trois semaine a ngi nii Modou Lo Ama Baldé jàll na waaye tamit Lac de sëgg na ak ki nga xamante ne moom mooy Siteu ñu jëm ci Eumeu seen digganteem ak Sa Thiès lu nar a xew ci làmb ji ndax làmb dafay jugaat lu ci mënti xew ci wàllu mystique dinañ ci waxtaan ak kilifa gi Oustaz Omar Sall téye nañ ko deux fois lañ koy doo retour de parquet jugement bi kañ la ak lu ko nar a xaar dinañ ci waxtaan ak Kamalu Bamba muy suñu kilifa ak tey gi balaa boobu dañ koy bàyyi moom Serigne Mame Cheikh Touré borom xam-xam la nitu yàlla la mu nuyu mbokki internet yi nga koy seetaan cheikh bi bismillah salaamaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki diaspora mbokki Sénégal gi ma nekk ñoo ngi leen nuyu ku ci nekk sa tur sa sant di nuyu kilifa diine yeeg kilifa aada yi di ñaan jàmm ci suñu réew di ko ñaan ci mbooleem réew yëpp di ñaanal suñu mbokk yee ca Palestine suñ borom defal leen ndam ak mucc jërë ngeen jëf. buñ la xamee ci réew mi seet gu leer tax nañu xam la ndax révélation laataa ci nga daan génn wax lu ñëwagul laataa ñoo xam lu muy saf ca nga daan génn def ko te jamono yooyu ba mu daan métti waaye bañ fi dikkee tey dañ fay fekk seetu ramlu muy seetu suuf goo xamante du naxe benn yoon te du wax lu juwaloog dëgg sëñ bi seetu ramlu gannaaw seetu ramlu gi yeneen i seet yaa ngi koy jëfandikoo xam nañ loolu waaye seet gi dafa dëgër mel ni li fi maam yi bàyyi woon nga yor. waa seet moom doomu aadama bi weer wu ne war na ko cee def buy dugg ci weer rek Mhm. la première war naa xool ay mbiram ndax seet du caaxaan léeg-léeg sax ma dégg ñenn ñi ne listixaar donte wér na waaye nañ jàpp ne listixaar kenn mënu koo defal ñaari nit de kenn nit lañ mën a listixaar par jour hmm? man boog moom laay def xam nga listixaar moom dangay ngay jug naafile ba noppi daal di tëdd ñi wan la lañ lay wan ci nit ki kon kenn de nga mën a jël ndax mënoo nekk say yitte nekk ci yitte jaam ñi mhm. bëgg li si xaar ndoolu mat fekk fukki nit ak juróomi nit loolu ay caaxaan nañ bàyyi caaxaan yi ak tappale yi li si xaar moom kenn képp nga ko mën a defal ñaaree ba nag seet gii moom boo xasee ba toog diiruwaa may jug képp ko woote dix minutes boo coupé dix minutes nga wootewaat ma wax la sax seet waaw amul dem te ñëw moo ci seetu suuf gi seet seet gii nii seet gii boo xasee ba nga xam si woote nga dix minutes ma nekk ci yow ndax dañ bind sa tur sa tur yaay képp laay soxla sa tur sa tur yaay. bu ko defee maanaam nga coupé dii minutes nga woote ma wax la li ma la war a wax. nee nañ seet gi boo ragalul yàlla sax mën nga cee tukkal jamono mën nga cee tukkal àdduna. waaw léeg nga defal ko nit sax ba wax ko lim sol. waaw léeg nga defal ko nit ba ne ko yaa ngeeg temps di dox. day defee ne léeg nit ki lay woo. wala nit ki ñu la booleel dëgg dëgg dëgg. day defee ne yow mii nii ki la booleeg moom moo la wax ci ay mbir ci moom. da fekk ne demeewul noonu. Eh. waaw kii moom tabaarkàlla euh, na ko ñëpp dem gën a gëstu ji mm-hmm. yaatal ci seen i mbir mm-hmm. ndax seet la goo xam ne si du naxe te li ngay wax nit ki xalaa force moom lay dund. mais seet goo dem bay jàngale waxuma du ma waxati sax ci maîtrise bi waaye ñi ngay jàngal sax ñoom ñooy génn ci internet bi léegi di wax seet gi maîtrise bi nga ci am dem nga ba ciy génne ay sarax yoo xamante day fànq lu bon luy ñëw génn di ci génne sarax yoo xam ne day xëcc tamit lu neex lu war a ñëw. waaw xam nga xam-xam moom. du doy. te tout le temps nit ñaa ngi am ay aajo yoo xam ne si moo ngi ne kët. daanaka weer wi jaruma dakaar hmm. te sama appartement nga da ngay toogaat ci ci dëkk bi. Hmm. gën a gëstu gën a nafaraat. Hmm. waaw ndax ku du nafar rek fëtt da yomb. boo gëstoo nafar gën a yeesalaat yëf yi. paaka moom day diib waaye bu diibee boo ko dàmmee rek alhamdulilah ñaw ñaw ko ga nekkaat fa waaw kon moom nañuy gën a génnaat taax yi duggaat ci àll bi ab diir doog a ñëwaat ci taax yi ndax maanaam li ci àll bi mooy jëriñ waa taax yi mhm. kon bu ñu fàtte àll bi nañuy delluwaat ci cosaan yi gën a xamaat cëslaay li di ko gën a jàng mhm. ndax jàng moom du paase waaw jàng moom du paase bu ko nit ki jombale boppam benn saa mhm. te loo gis ku la ci tane mu wóor na lii moo la ci tane demal nga dem jàngi ko moo gën bis set nga toog fi nga toog rek bëgg a dajale téeméeri nit bëgg a faj seen aajo te kenn rek la ci aajoom di faju loolu day yàq liggéey bi mhm. nañuy génn gën a nàmmaat suñuy dàll gën a gëstu xam-xam bu noppee ñu indil ko askan wi ndax xam-xam rek mooy des mhm. leneen lu xam-xam rek day na day naax saay mhm. Kooni Kamaalu Bamba dana la dafa polyvalent waaye buñ gëstoo ba ci biir lenn la lay wax mooy li mu gën a nekkee à l'aise wala li mu gën a sawar mooy boole ay diggante nopp dafa mel ni nopp da nga cee yor secret bu gaa yi yorul wala lan moo tax nopp daal ko ci diiranteel mbëgg gañam waaw alhamdulilah rabbil alamin dañ koo jàgg jàng di ci def ay ay ay anam yu bokkul yu bëree bëree bari dañ ko ci dañ ko dañ ko ci def dañuy noob bay noob sax ci lem. ci lem. waaw lem dañ ci. baadu looloo waral ñu naan la borom lem. dañ ci dañ ciy defar yu yu yéeme yoo xam ne si. maanaam nit ki balaa balaa joteeg borom këram moo xam borom këram ki soxnaam sax. bala ngaa joteeg sa soxna. nga raayoo ko ci sa sàkkara doog ànd ak sa soxna mm-hmm. bu soobee yàlla dana dana dana nooy waaw dana dana dana nooy ñëpp mm-hmm. amaana ki nga xam si dafa nekk ci àll ba mosu leen a gise loolu day jar day jar xool turi xool tabia bi xool ban biddiw biddiw bi mm-hmm. xool ban heure lay génn ak ban kii nga doog cee mën a jublu man dooma woo rek jekk-jekk man la déedéet temps lii déedéet dama koy xool ba gis lu ma doy bu ma doyee man la bisimilah nañ ci jublu bu ma doyul man la doyu man dama seeti keneen. waaw ndax lépp moom kenn mënu koo matale ci sa jëmm ji. Mhm. da ngay man lii ña ca des man la le am na loo xam ne boo ci duggee yàlla defal la ci ndam am na loo xam ne boo ci duggee yàlla du ci loolu nag nga xool ko ba am ci lu wér mhm. doog ne ko bisimilah boo ci amul lu wér nga yabal ko ci keneen rek dafa am loo xamante ni boo bàyyi woon lépp jàpp ci du tee suba ba ngoon lañ la ciy rang muy wàllu néew kattan mel nga ci noo xamante ni boo xëyoon ne moom dong faj suba ba ngoon lay rang ndax xam ni nga ci mel sëñ waaye yaakaar naa loolu moom wër na àddina bi. waaw ndax am na saafara soo xam ne si boo ko boo ko boo ko defee ci ñam bi. Mm-hmm. ba ànd ak dogal bu yàlla doo too tootalee. waxuma nag ki tële ba ne yàcc yàccaaral moom ki nga xam ne si moo ngi jug ko néew. bu ko defee saafara wut ñam bi. Mm-hmm. ñam bi joo xam ne si dana toll ni nga bëgg te te bañ a ëppal nag ndax am na ñoo xam ne dañoo ëppal. waaw yëfi góor moom <laughs> dooy na ca rek. waaw waaye am na ñoo xam ne dañoo ëppal lu ëpp nag baaxut. waaw booy saafara su jur jàngo lay doon léegi nag boo wutee ñaam boo xam dana mat ñaari nga bëgg tuuti nga boole kook saafara si bàyyi ba ba ba ba waxtu gee nga lekk ñaami ji saafara si nga naan ci di ci rax sa sàkkar ñetti fan bu soobee yàlla dootoo tëli waaw am na fas goo xam ne si tamit buñ la ko joxee nga takk ko bu soobee yàlla moom da nga señ sëñ bi dama fay gisul fas gi tey lan moo dem fas yi daa jeex wala waaw nag euh, tey ji ci génn mi génn dañoo nekk diggante ndindi Touba ak dëkk yi ñu wër di am yu ñuy wut ak yu ñuy kii bërëb yi bërëb ba ñuy liggéeyee dakaar mhm. ci la yëf yi nekk nag fas gi diggal ma ci fas gi fas moom boo ko takkee ñetti fan nga koy takk doo jox soog sa soxna ñetti fan nga koy takk yoo xam ne si da ngay muñ waaye ginnaaw ca ñetteel fan ya boo commencé jëfandikool koo koo làmmisool bu soobee yàlla danga xam ne làmmisoo nga ak moom waaw bi fas gi tukki na tukki na tukki na jigéen ñi sax dañ koy jëndal seen borom kër yi jigéen ñi. ñoo ngi koy jëndal seen borom kër yi baax a baax a baax a baax a baax a baax. Ah, waaw fi toll nii yaakaar naa li ma ci am ci kumaan. Mhm. moom euh, mëtul la nekk ca dakaar waaw kumaan yaa nga fa tege di ma di ma xaar waaye mu ñëw leen ma rek bu weer wi dee bu soobee yàlla muy ñëw Dakar. incha allah bu soobee yàlla. dafa am loo xamante dama koo seetlu ci réew mi gone yépp a ngi daw uti gaal gi lenn moo ko waral muy ñàkk ubbeeku te dama naan xanaa dañoo jëflanteegul ak sa jëmm ji wala dañoo xamul fa nga ne ca àll ba ndax ku ci jëflante yow ci wàllu ubbeeku dootu soxlaatee dem gaal. Ah, ah léegi ñun ñi foog nag mën naa bañ a doon loolu njiit gu bon tamit ci la bokk. déet waay waaw lu ko dalee ci Macky Sall may président ba ba ca ministre bi mujj. waaw kenn liggéeyu ci te baaxuñu. ay télé ki hôpital yorutum réew réew da ngay fexe ba senes bi amum xëy dañ dala seen xel. gi nga maanaam ragal a bëre bu mu tax nga jàpp ñëpp tëj ci koso bi. Mm-hmm. waaw Macky maanaam na tijji Ousmane Sonko mi ay tappale la. ndax CBA woog ñëpp joxoon nañu Ousmane ko dëgg. léegi nag bu fekkee da ngaa jël justice bi nga ger leen ba nga am si dañuy xeex koo xam ne si doomi jàmbur képp la te ñi jeunesse bi li ëpp bu ñu dee 100 pour cent 95 pour cent yëpp ci moom la am yaakaar nga tëj ko ci koso bi loolu baaxut. jeunesse bi dañoo xonet war ci gaal yi. waaye bu fekkoon maanaam lii lii nii mu jàpp ci nit ñi tëj defar na ay usines yu noonu. léegi nga gis maanaam ndaw ñi amum xëy. waaye góor ñëpp ñoo ngi seen i roq ndax ku wax ñu jàpp tëj ci koso bi Macky Sall mi du fi sax nit képp la balaa yàgg mu dee yàlla xam na ko balaa yàgg mu faatu nit képp la da ngaa mas a gis kuy dund dem te bee ko gën moom ci biir suuf Seexul Xaadim mii ma nekk ci dëkkam moo ko gën moom ci biir suuf kon balaa yàgg Macky Sall faatu génn leen ngeen wax seen doléance ci réew mi bu ñu leen di tëj tëj leen bu ñu leen di rey ngeen ngeen dee waaw du Macky Sall du ministre du kenn ku leen mën a xoqtal li ngeen war a wax te gëm ko génn leen ngeen wax ko te yàlla waaw kuy bu am loo war a wax génnal wax ko te yàlla képp tax ñii fi nekk balaa yàgg ñoom ñëpp ñu faatu dugg ci biir suuf. Oh. ana Senghor. ci suuf moo ngi ci suuf. waaw Abdoulaye Wade daa mënati. Abdoulaye Wade mënut a daw maanaam 300 kilomètres yu mat 100 kilomètres yu mat Abdoulaye Wade mënu koo daw. Abdou Diouf a ngi Versailles tëdd xuma France. ah dañoo ay buur yi ko magoon ëpp ko puissance pop ci monde bi ñoo fi woon Firawna moo ngi fi woon. Mhm. Souleymane yilifoon na àddina bépp te mu ngi ci biir suuf Macky Sall balaa yàgg moo ko njabootam yépp ñu nokkos leen ci biir suuf génn leen ngeen wax seen soxla réew mi metti na mhm. kilifa diine yi pataaral gi tamit metti na mhm. te ñi ñi tëj ñi dee ci ndox mi sept cent cinquante personnes dee nañ ci biir géej oh. te wàccewuñ drapeau bi oh. xam nga loolu du yoon woo jëlee sept cent nangam personnes dee ci mennum réew te kilifa diine génnul wax président bi waxul kenn waxul waaye réew mi kilifa diine mën na ni yëguñ ko sax ñoom ñoo ñoo ko gën a yëkkat waaw xel koom gii ñu jub si nii sëñ Cheikh di ko wootee ki rakkam ñun taalibe yee cay dem màggal Tuubaa gii bari na sëriñ bu yeewu nag ñun taalibe yee koy jënd mm-hmm. Tiwaawan gee la fay dee la ëpp ñun taalibe yee koy def mm-hmm. Macky lay dem bàyyi leen ak taalibe yi kat mm-hmm. waaw lislaam ji moom rasulullahi la yàlla yónni ci ñun ku dul rasulullahi sa wax am na luñ ciy jàpp am na luñ ciy ba ku dul rasulullahi rek sa wax am na luñ ci jàpp am na luñ ci ba njaboot gi nag njabootuk lislaam la njabootug rasul lay seen maam yi liggéey ko ngeen war cee sàmm Sonko mënut a menacé maanaam dëtëriñu suñ Touba. Macky Sall mi mënu ci dara tubaab yee gënoon la wopp fop mhm. jëflante nag suñ Touba juróom-ñaari at juróom-ñaari wet indiwaat ko ci biiram mënu luñ ko dara ci genn wet bu ñuy ragal Sonko wala ñuy naan ay kii bu fi toogee day menacé loolu mooy lan waxi tappale yooyu mooy lan uh-huh. ba nit di ko gëm wala nangam. docteur suñ Sëñ Tuubaa téeméeri Ousmane Sonko ci menn réew mënuñu ci dara mbir mi mbirum politique la yàgg naa am ci réew mi yàgg naa am ci yeneen réew mm-hmm. nañ bàyyi doomi jàmbur ji bàyyi xale yi yiñ tëj nañ leen bàyyi la ci sëriñ si wax mm-hmm. waaw ni ñuy informé yi xew ci weneen ni réew ñu koy xam nañ informé ne maanaam 700 nangam personne dee nañ ci géej gi day national moo waroon a am Sénégal mais Ousmane Sonko mi nga xamante ni boobu ba léegi kenn waxul yéeyul yàbbi ci mbiram ngir mu bokk ci élection yi dañuy dem daal tey eh, jël ñaari juge ñetti juge cinq juge ñu juge daal jékki-jékki ajaat mbir mi jàpp ni dañoo bëgg ay pexe ba élection yi jub si ñun Ousmane Sonko mënta bokk. 31 décembre la Macky Sall taxaw fii nii. waaw son excellence président man ku ma mas a xam-xam ne Macky Sall laa àndal. te bu woote woon moom laay faral moo taxaw fii nii am na dossier yoo xam ne si da ciy teg tànkam. waaw dossier Ousmane Sonko bi da cee teg ñeenti tànk. bu ko mënoon am ñeenti tànk la ci teg pour Ousmane Sonko des ci koso bi. ba booy yi coow nee na leen bu ngeen coowee ma ubbi waa ji mu jël réew mi ñax seen ndey ci koso bi nii la ko waxee. dugg na saa nopp de. nañ bàyyi doomi jàmbur ji dégg nga te jéem a liggéey réew mi am réew am réew kenn du ko paacoo duñ koy liggéey ku nekk gis sa bopp. waaw waaye yaay tappale la donc ëllëg ci biir Amadou Ba mi mën naa bañ a jël réew mi ku fi jël topp topp sa sa njaboot gi. Mhm. bàyyil nit ñi ñu bokk ku bëgg a bokk na dem bokk. Mhm. dégg nga yow yàlla def na la lim lay def ba noppi. maa ma sa dégg sa Seck ne bu ma juumoon moom bàyyam ma lan la woon bàyyi Macky Sall gardien la woon te gis nga leen yàlla def ci réew mi yow tànn kilifa diine yëg ñëpp nekk fi yàlla tànn la jiital la nga jiital ñëpp booba la yërmaande ji war a mm-hmm. ah ah nañ génn ci ñooñu dem ci ñeneen ndax maanaam waaye damay des ci loolu ba léegi li tax mooy kii di Oustaz Omar Sall dafa am lu mu wax am ñu ko gisee nii am ñu ko gisee ne jamono ji mi ngi ci ñaareelu yoon retour de parquet ñii ñi ngi naan mën nañ koo dóor mandat de dépôt ñii naan mën nañ koo libéré mu ñibbi këram sëñ. Omar Sall moom nit ku baax la. weddi wut waxi mag ñi fi ne. Mhm. léeg-léeg ñun ñii fi ne. ku nekk da nga gis loo xam ne si danga teg sa bët bi danga ko du ñamee wax. caaxaan mee bari ci li fi mag ñi bàyyi woon. Mhm. waaye Omar Sall weddi wut menn mag. te lii ñu koy toppee Cheikh Ahmed Tidiane ma. Mhm. ma ca Maroc. bu fi nekkoon baal ko. nit wax na lu ko gën a màgg ci tarixa bi wala wax loo xam ne si kufru lay doon ca tarixa ba wala muy suñ tarixa bii te ñi ñaa ngi leen di bàyyi nañ ko bàyyi mu dellu ci njabootam yi ay caaxaan képp la ndax Omar Sall mun ta wax a wax ba ñun lii ñu ne ñu génn ci buñ tegale woon ay baayam ak maamam ñun lii mu ne mënuñu cee génnee nit nag bu dee wax la muy wax da nga jël la nga moom tam am njariñ nga jël ko jëfandikoo ko bu fekkee safaan la nga fexee bañ yow bañ gis la ca Seydi Aji Malick ak i doomam kenn mun leen a gàkkal waaye nag ku ami sët gis sët bu jubadi ak bu dëng de waaw muy Tiwaawan muy Tuubaa léeg la nga gis ay sët yu dëng dëng dëng yoo xam ne si bu seen maam ñëwaatoon aw yat lay jël nañ bàyyi diina ji ñuy pasar pasare diina ji diina ji suñu boroom la ci rasulullahi la ko jaarale keneen ku dul moom da ngaa woote la nga woote dal xel nit ñi ñu topp la waaye rasulullahi la ñu gëmloo tey ji nit ku gëmoon alaaji Malick wala nga gëm suñ Tuubaa gëmoo rasulullahi dootoo nekk jullit kat te la rasulullahi ko yàlla ak rasulullahi digle mooy dëgg leneen lu dul loolu nag luñ ci sofla ak i caaxaan képp Omar lii mu wax nañ ko jéggal dafa tooñ nag ndax moom dafa waxu ko direct waaye ko ko dégg wax ja da nga xam ñi waaye nañ ko jéggal te xam ne ñun suñ biir ñoo ngi def lu gën a ñaaw loolu di kufru di bokkaale mm-hmm. di tëkkale sëñ beeg yàlla ak lépp te oh. teewul nit ñaa ngi nit ñaa ngi ñuy bàyyi ak suñ sago yàlla moo ngi ñuy bàyyi ak suñ sago nañ bàyyi caaxaan yi te am yërmaane suñ digganteeg mbindeef yi yàlla ëpp ñëpp yërmaane te dañoo bàyyi léeg nga gis nit jóge ci moy yàlla te du ko wàññi dara day gën a yokk te bu ko neexoon mu jëlu yat ku jàdd mu la ko ci sens dégg nga suñ tubaa yërmaane la ànde woon ak jaam ñi nit ñi sonn nañ de yàlla xam ne nit ñi sonn nañ mais damaa bëgg a changer nag ñu dem ci làmb li tax ma ne ñu dem ci làmb dañoo tegale trois semaines lamb di am Modou Lo njëkk ñëw ñii ne Modou Lo zam-zam la doon xëppoo ba daan daal di ñëw Eumeu Sène ñi ne Eumeu Sène waa Pikine ñoo ko sot mu daanu Lac de Guiers ak Siteu gis nañ waaye tamit dafa am làmb juñ jëm muy Eumeu Sène ak Sa Thiès coow li nag mi ngi tàmbalee bëri ñi ngi naan Eumeu Sène ñaari combat la muy waa Pikine ak waa Guédiawaye li may wax ci làmb daal bariwut mooy lan Ama Balde waaw yàlla na ko yàlla defal ay ndam ñaanalu ko nag de mosumaa jël sama kurus gi ne ko allahuma jëmale ko ci moom de ah. damaa gis ne ndaw la luy dem boot lu bëree bëri ñi gàllankoor ngir Ousmane mam faral man maa ngi farak Macky sàll keneen a ngi faral keneen. gi nga àddina bi ku neex na nga farak ku la neex. dégg nga. làmm nag boo néew ma du ma ci ñaan de waaye du ma ñaanul ku ma jox lu xaalis du ma génn fii di mbembeb ndax moo boo ma woyee ceet gi nag may fay. boo ne ma li si xaar damay bàyyi samay nelaw nga fay ma. ñooy làmm ñoo xam ne seen làmm ku ci ñëw ci man ma ñaanal la ku ci ñëwul ci man yaa waaye Ama Baldé daal moom fu ma toll saa làmmiñ yi bu dee bëri naa ne yàlla na ko yàlla defal ndam bu ma fay tamit du ma ko ñaan ñaanal téye nii kurus toog jataay guddi du ma ko defal ñaan gi sama làmmiñ lay ndax ndax yërmaande ji la nit bu bootee lu bëri daa war a amee xéewal mm-hmm. waaw mais lu mën a gañe làmb maanaam làmb sarax a koy gañe ñaana a koy gañe mystique koy gañe ndax gis nañu am na yenn mbër yoo xam ne léegi lañ doon takk ci ay gàllaaj takkatuñu lay daan mbër dëgg-dëgg sax du ñëw ca du ñëw ca yëf ya moom ca ca ca ca kër ga lay des. lay daanu mbër ca kër ga lay des waaw. làmb daal man li ma ci wax leen la mbër mu ma seet si bu ma la ñaanalee boo ma dékkoon mi ko man la diw laay ñaanal fay na ma xaalis. bu soobee yàlla mooy daal. ko ci mos a ñaanal ci ñoom bëri. ah loolu nag mbirum biir la. xam nga tey jii yow boo ñëwoon fii nii xaw a tëlee ma ñaanal la doo bëgg ma toog fi di ko wax. Ah, ah mbirum biir la nañ bàyyi noonu. waaye sëñ bi ci samp yi nga daan liggéey samp gi samp gi dañ ko fay te jamono ji gëj nañ nga wax ci lan moo tax da nga koo bàyyi wala léegi lan moo xew. man rek maa mas a taxaw ci àddina. génn fii ci écran bi. waaw wane sans visa yoo xam ne si yëpp ci wenn weer la génn. moo ngi sama téléphone sama téléphone ma sori waaye kon moo ko. boo demee 4appuis TV fekk ko fa boo demee maanaam euh, ngeen baal ma ci jàll gi. ca euh, Dakar euh, live la. dëkk hmm. Allô Sénégal. waaw moom laay waxee waaye beneen site ba waaye dama ko fàtte. waaw site yi man na koo génnee nga nga dem xool ku ma chiffre. man rek maa ma sa taxu sama téléphone nii ma génne ci sans visa. yoo xam ci benn weer yoo ciy ñaan. ci benn weer ci benn weer ma génne san visa gi nga mbir yi buñ di naxante kii jëflanteeg yow bu commencé jëflanteeg yow dana xam ne yow mii mën nga koo yeggale fi mu bëgg wala mënoo ko faa yeggale. Ah, waaw mm-hmm. man rek maa ma sa taxaw laaj weexalu milliard waaye joxuñu ma ko. weexalu milliard. barke alxuraanu karim sama bakkan nit wax nay soxlaa ba noppi ma ko boo ma joxee milliard mu mu antu mbir mu nekk dafa am lu ko jar moo ko jar lu ko jarut jaru waaw lu jar yàq nelaw yi guddi lu nekk na la mën a fajal say soxla yaag sa njaboot waaye nit ki mënoo maanaam bëgg lu rëy rëy rëy rëy mm-hmm. poti cuuraay bu neex sax mënoo ko jox nit ki yow buñ la joxee xaalis boo ko jëndee ñaari poti cuuraay mu jeex loolu day dara boo bëggee lu rëy da def lu rëy waaw am na koo xam ne si fan yii nii bi mu ñëwee booba maa nga Dakar ma dem dem jëli ko bi mu waxee daal maanaam ni mu bëgg a weeree réew mi ak yooyu dafa war a bokk ci élection yi ma ne ko ah man de 14 régions yëpp xaw ma maanaam agression yëpp daal danaa fa wër fu nekk dinaa fa fanaan genn guddi waaye ba ma ko waxee dama ko ba léegi gisatu ko de. Ah. bëggee akara da nga. na milliard nag mu daw si. xëccoo gi ñu xëccoo réew mi moom du ngir yàlla képp di. Ah. kan nga mas a gis mu jaar fi boobaak léegi. te ay mbiram baaxut ay mbirum mbokkam baaxut. kon bu ma lay jàppale yor lu la mën a fal doo ma jox loo xam ne si saay mbir dana baax saay mbir doom baax. ah boobu daal moom waaw yor réew mi. yaag say gars yi seen i mbir baax nañ. yow mim la wóor na yow maanaam kii nii boo ne ko bisimilah mu falu. Mm-hmm. ah du la mën a jox loo xam ne si bala ngeen a commencé yow say mbir ak say mbiru njaboot baax. ban président nga fi gis muy nemmeeku sëriñ boo xam ne si moo ko doon ñaanal ba mu nekk guddar da ngay man kay bala maa commencé da may jox loo xam ne si maanaam bu soobee yàlla boo nekkee ca kaw dootuma la soxlaa gis wala yow yaa ma soxlawaat a gis. waaw samay mbir baax samay mbir njaboot baax. waaye dama bëggoon tëjee ñi ngay xam ne ñoom ñooy wax naan alxuraan dafa yéex am na lu ko gën a gaaw sunguf see ko gën a gaaw eh, eh, maanaam fétiche ko gën a gaaw ak leneen moo ko gën a gaaw foofu laa bëggee ñu tëjee ko tey. rasulullah njëbaruñ ko bañ la dof na ci mbedd màkk yeeg hmm. si naa naalin moo ko gis. lu ko faj lu dul falax naa si. waaw ah. ah loolu moom ab jul ku dub jullit moo koy wax waaye maanaam naa la wax leen de am na musalas boo xam ne si boo bu ma la ko bindaloon fii ci yoon. bala koo ngelaw effacé sa sa aajo faju hmm? waaw gis nga ca kaw nit ka nit ki jëflanteeg yow ca kaw weexal gam lay weexal. xam nga tey jii mënoo bëgganteeku milliardaire mu wër na la kii mën naa faj sa soxla yëpp. nga bëgg a yëkkati ab téeméer junni ba koo jox kii ne ko na ma kii topp. te téeméer yu mel nag moom yaa ngi koy xëccoog ñoom mu téeméeri jigéen ñi xëccoo kii mm-hmm. nga bëgg a yow jëkkati benn 500000 jox ko ne ko ne samay aajo faju yow yaay nax sa bopp bu ca sëñ ba defoon lu man lépp sa aajom du faju nit lu ko jar da ngay xam ne lii jaral na la boo doon minaa sa bopp def ko man tamit maanaam man mi nga xam si yow jox nga ma sa xaalis mm-hmm. bu ma doon jaay sama bakkan sa aajo dana faju yàlla xam na ko waaye munoo yor maanaam ay téeméeri soxla bëgg a ñëw maanaam fekk sëriñ boo xam kilaan ya dàqal tappale maanaam sëriñ si ñaan ndax yow mënoo yor addina yi soxla mm-hmm. bëgg a jékki-jékki joxe téeméer junni na fajal ma nangam ak nangam loolu du faju waaw da ngay xool lu ko jar nga def ci lu ko jar ñi génne la lu ko jar waaw lan ngay tàggatoo yàlla na réew mi am jàmm amiin waay Ousmane Sonko mii ñu téye mm-hmm. bu dee moo gën ci réew mi yàlla na ko yàlla génne man nag bu doon élection suba duma duma ko woteel nag waaw. teewul ak Sonko li nga ko faral ak yii dëgg la yàlla moom daa am ñu ko bëgg man Amadou Ba mii fi Macky Sall teg doyuma ma ah. Macky Sall ma doy te Macky Sall bokkatut Sonko nag maanaam ci jëmmi Sonko mm-hmm. nit wax guma ci man lu ma doy waaw nit wax ma ci lu ma doy ba tax ma mën a nagu waaye damaa xam ne nag maanaam lii ñu koy teg ak tooñ la mm-hmm. waaw te ñëpp ne pat pataaral waaye téeméeri sànq lañ bu ñu nekkoon sa doon tànk bii benn mat la ci boo xëccee juróom fukkii dañ dee wala li tooñ gii ñuy tooñ ab jullitub yàlla. Mhm. jullit ñi mag ñi ne ci cell celaaral bu yàlla doon wàcceeg mbugal fii nii ah, dana metti de. te bala maa dee ñu ne mag ñu baax ñi fi tëdd. Mhm. moo teex réew mi takkut loolu amul. ah barke Serigne Touba amul. mag ñu baax ñu fi nekk réew mi réew mi yéggagul fu mu war a tàkkee te yàlla bu mu fa yegg waaw am na ñu ñu ëpp ay waliw fop mhm. Irak moo ñu ëpp ay waliw fop te moo ngay tàkk. si naaw si nu ba dañ koo dagg te sëtub yeneen bi la bàyyi leen yooyu. tañ maslaa te defar suñ jukko yii te ànd te yàlla tax tey waxante dëgg yow mi nga xam si boo waxee président de la dégg la nga war ko wax lu jëriñ réew mi woo ko ci njekk ak teraanga nga ne ko président lii moo gën ci réew mi lii moo gën ci ñooñu réew mi waaye réew mi moom bu yeggee fa mu war a tàkkee bu fi junni waliku doli waatoon ñoo xam ne addina bépp dañ leen xam réew mi dana tàkk oh. waaw yàlla yàlla ak ay mbiram tëg ko ci waliwu ak wér jërinti bu tëdd fii de mm-hmm. nañ bàyyi caaxaan yooyu yàlla réew mi am jàmm yàlla na réew mi am jàmm yàlla na réew yi ñuy dendal te di julit yàlla na ñëpp am jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu fa la ñuy jaar jaajëfal leen ndax gis ngeen ni mu waxtaanee bëri na ñoo xam ne buñ ko seetaanee dinañ xam ni fii daal mooy cëslaay li bëri na ñu génn ci internet bi di wax ci loxoom la ñu jaar mu def leen lam leen def ba leen jox leen ndigal ñu doxal bëri na ñu seen ajo di faju ci moom la ñu jaar wala ñu jaar ci ku jaar ci moom seen aajo mën a faju lenn nag moo ko may mooy xam-xam waaye donn maam yi doon maam yi la def waral Allô Sénégal seet si ko ngir fasanteeg moom kóllëre jotaayanteeg moom pour une première fois ñu jaarale foofu noonu nag jaajël fa mbopp mbokki internet Allô Sénégal gépp jox leen dig daje ëllëg ci seen beneen émission jërë ngeen jëf